saaneex da wax sank mhm. avant mhm. ñuy commencé ne mhm. ween dafa am solo ah, deug la muy meew te sallallahu alayhi wa sallam wax ni ku bëgg ngërëmu yalla waxul ne jullee la koy may de waxul wor waxul aj makka waxul natt asaka daf ne dom ju bëgg ngërëmu yalla ko ut ci ndeyam ku bëgg ngërëmal yàlla wër ko ci say waajur na ko sa ñaari waajur gërëm hmm. yàlla gërëm la ku sa ñaari waajur mere hmm. yàlla pare na ci moom kay fexeel am seen ngërëm lu tax hmm. parce que bi mu lay wàcce ci suuf gis na ñëpp. mu tànn ñi mun a boole. wallaahi. Sanex ëmb dafa métti. Ah, juróom-ñeenti weer. am na beneen bu ko gën a garab. li ci seru yaay. dooma tax mo nawleem gis ko. Mhm. li li yaay li yaay woddoo. Mhm. doom bii judd. Mhm. moo tax nawle yaay gis li ci seru yaay. mooy rawle rewle ga ndeysaan. ndeysaan bu dul loon juddu xale bi kenn du gis yaay ji li mu woon doon wallaahi ndeysaan kooku bu bégul yàlla du bég dëgg la waaye oustaz suñu jamono ji ñu gis na léegi boole bari na si ndaw ñi ñu xam ne joxatuñu cër seen wayjur yi chaque jour presse bi bind ko wallaay diw dóor na yaayam diw yóbbu na yaayam police diw yóbbu na yaayam police waaw diw ah, mhm. def na lii oustaz noo jàngalee jàngate si loolu xam nga xaaj góor a cheikh mhm. dafa am lu nu yàlla waxoon ci diggante way dencante daf ne saaneex mi defar boppam ba yëg ni ni mu mel neex na ko mm. na wuti jigéen ju mel noonu maanaam ku ne daal maanaam ci ni ma ko jàngatee ku ne na ànd ak ka ànd ak waaw parce que cheikh bu yiwee takk ku yiwadi mm-hmm. fitna la koy jural dëgg la moo tax alquran ni góor gu yiw nañ ko may jigéen ju yiw ñu jur doom ju yiw doom ju yiw maa tax tukkulóor ne yu ma mujj. baaba mujj dingal bonata ah. allah xaale googo. man dafa ustaas nag wax ne. ustaas cay ustaas. albaladu tayib yaxruju nabaatuhu bi idni rabbi suuf su ne. suuf su ne. Hmm. xam rek lay jur. moo tax bu fekkoonte ne. cheikh bi muy ut soxna calculer wul cheikh parce que buy ut soxna bul calculer sa bopp. calculer doom ji war a judd nga utal ko ndey. ooy waay. <laughs> jigéen ji buy seeg cheikh. mu xool cheikh. na seet doom ji mu war a jur ak cheikh. comme ni ngay amee sa xar ni ma koy misaale léeg-léeg. soo amoon tey laadum. bu góor bu ko war a kurkur. kii am laadum bu jigéen. su demee ba soxla ci moom doom. danaan la damaa bëggoon sa xar mi tëbul ma sama xar mi. dëgg la. moo na romb na xar yu bëri yu doon góor. waaw mais amuñu race bi mu soxla. ay kurkur la. Euh, la. léegi nag mu jël ra euh, euh, laadumam bu jigéen. Mhm. te kaay ma wax la. laadum boobu nga gis. bu alaaji góore bi. Mhm. pour mu tëbu bu cheikh. il faut mu fay ko cinquante mille. waaw dañuy fay. dañuy fay ndoxu xar laa de cinquante mille dañuy fay cinquante mille. pour dëggal li nga wax xar allemand yi ba ñu bëggee race bu baax. waaw dañoo jël fële booleek seen xeet ñu croisé leen. allemand yi dëgg la xeet yu njool ca kaw ñu am doole. léegi nag li tax ñu boolee laa dum bu góor ak bu jigéen. waaw du góor bee leen ñor de. du jigéen bi. doom ja doom bi ji la ñuy waajal. doom ja. doom ja dégg naa waaw léegi léegi. dégg naa dëgg du ma yàlla baal ci ci kàllaama ji koo xam ne daal ak caay-caay moo nekk ci moom hmm. ndax possible na buñ ko mayee jigéen ju saay-saay gu mel ni moom lan lan lan la mën a indi ok alxuraan wax na ko daf ne at baatu waaw bii la xam nga amoon na fi émission yu fi amoon ñu ñaan ko ustaas ñu di ci wax ñu naan yàlla nee na jigéen mën nañ koo dóor mën nga bàcc bàcc rek Ah, ah déedéet. man da ànduma ci loolu. alxuraan waxewul noonu. yàlla def ne. at tayibaatu li tayibiin. maanaam. jigéen ju yiw. nañ ko utal góor gu yiw. waaw. Mm-hmm. wa tayiboona li tayibaat. Mm-hmm. góor gu yiw nañ ko may jigéen ju yiw. waaw Cheikh ma laaj la. Mm. ndax ku yiw dana dóor. mukk ku yiw du dóor ndax ku yiw danañ ko dóor ko dóor boo duggee nag ca aaya ba da nga fay génne fadribuhunna dugal fa fa'izuhunna yàlla nee na yedd rek la moom mais moomul yar hmm, jigéen daal yedd rek dañ koy yedd la boo ko yedd bu ko kenn seede yow ak moom bu ngeen demee bay tëdd nga ne ko soxna si bëggoon naa ñu waxtaan tey bi fi saa ndogu see ak alaaji góora ak baro wax dëgg yàlla ni nga tegee ndogu li neexuma ba ñeex mi fittax rus naa ci mu ne la wallaay damaa juum damaa juum waaye dootul am baal na bu dee ku yiw mooy wax damaa ku yiw laa mooy baal yiw mais nag mais nag mais nag oustaz ndax góor ñi góor góor dafa mën a wor de ah, ah, góor ay gis jigéen saa déglu ah. waaw xam nga boobu père booboo war a ànd. waaw jigéen ju yiw góor gu yiw. waaw am na beneen fu alquran waxaat. waaw alxabisaatu lil xabisiin. wal xabisuuna lil xabisaat. sunu borom nee na. suñu bu dee góor gu jigéen ju wuyu. waaw nañ ko may góor gu bandi. waaw. woyu bandee baayam ku nekk ak genre pour lan suñu borom nag nee na ñaar ñooñu waaw suñu àndee ndaw si day doxee ba une heure waaw góor gi ñëw deux heures waaw eh doom ji ñëw di tëdd cinq heures du gi mhm. bu nu xuloo muy indi fadri boo woon na cooki ba bët set <laughs> waaw léegi léegi ñooñu ban chance la ñu am pour ñoom pour am jëkkër ah nga bool boo gis am na kubéer dëgg la <laughs> bool boo gis am na kubéer waaw ci lu nekk ak la koy saf waaw te kaay ma wax la gis nga ku ku wuyu. Hmm. soo ko mayee jigéen ju yiw duñ hmm. yàgg. du yàgg parce que la muy bëgg a séqeek moom. Hmm. ak bëgg ko dundeek moom. ndaw su du ko àttan. parce que wuyu la. góor gu yiw boo ko mayee jigéen ju a ji duñ mën a yàgg. parce que laaj góor danaan kii saa dimbale ma rek yaa Cheikh kii def. waaw duñ yàgg. parce que li may dund dund ko li ma gëm gëmu ko bàyyi ma rek ma yeewi. waaye bu li alaaji góor di dund ndaw si di ko dund suñ leen boolee ñoom ñaar doo àtte cheikh du àtte dëgg boo gis amul problème dañoo bokk principe waaye bépp couple bu bokkul principe bu dee sëy ba yàgg na ci tolof tolof lay rëy moo tax yàlla bëgg ñu tànn ku yiw ci góor mhm. may ko ku yiw ci jigéen yiw nag du njàng ah, déedéet lan la jàng téere yi nii du tous loolu njàng la rek yiw lan la yiw jikko la ak meem jikko ji fu muy jógee jukko jaa ngi jógee ci meew c'est très important waay ba kontaan waay dama lay laaj meew c'est très important lu tax xar mel ni mu mel lu tax bëy mel ni mu mel mm. lu tax nag mel ni mu mel lu tax nit mel ni mu mel meew mi ci dënnu yaay hmm. ci la ñuy génnee xel te xel ci lañuy ñuy génnee jikko meew mi ci dënnu yaay ci la ñuy génnee xel moo tax nga yor xelu nit suñ la joxee kaas bi nga xool su dee lekk nga fóon bu foroxee nga bàyyi baa ngi ne nii ñam bu foroxee nga bàyyi boobu xel la loolu xel moo koy liggéey su dee bàyyi ma day ñëw roof gémmiñ gi lekk. dëgg la. moo tax meew am solo. jigéen ñu bëri. dañuy ut ay biberon di ko nàmpal seen doom. biberon nag meew lu mën a doon. xale bi jikko jooju la yore. waaw. Samb dégg nga loolu de. léeg-léeg nga gis xale bu tur mel ni béy. naan ci ci ci ci. wala nga romb ay nit doo leen sa moromu baay doo yi noonu la ñuy def moromu baay doo ko nuyu. sa moromu yaay doo ko nuyu. Mhm. soo dalee ci ko paa bi mu xale bi lii nga ne ko père de. nii waaw. waaw ah. rek. dox ba mu neex la nga dindi sa tubóy taxaw di tuur ndox comme comme doo nit. mala yaa koy def. mala yee def loolu. dëgg la loolu li koy indi nag. meew mala li nga nàmp la. ak xam nga ban ustaas. ban sëy ci mbedd yi. fan fu mu leen neexee la ñuy sëyee léegi. am na da ko bëgg a weddi. fu mu leen safe rek. léegi sax kii la lu mu tudd. vis euh, vis la vis la. léegi dañ koo def yëfi gër yi xam nga Cheikh. waaw léegi kii. ah dëgg la wax na dëgg. yëfu gër waaye dañoo war a bàyyi xel leen. muy suñu borom nee na benn nit bu yàqu. Hmm. jàppal ne monde bu yàqu la. la ilaha la preuve aadama rek la woon ñu génne ci xawa ñuy jurante ba monde bi di riir kon benn nit bu yàqu peuple bu yàqu au lieu nga wut ay doom wutal nawle doom yomb na mango goo dem am na ko papa am nañ doom mais nawle moo yombul luy nawle jur ta nawle luy nawle nawle mooy ni nga mel nga jur ca ko mel am na doom joo xam ne tey bu baayam deewoon xalaatul këram xalaatul alalam mu ngay xalaat la bàyyi def ba ba fi kër gi danaa def lu ni mel ba am kër waaye léegi mais oustaz loolay naw man dafa am lu nga xam damay laajte parce que saa wax na ko léegi ci biir waxam ndax vice ci doomu aadama dafa garaaw mm-hmm. am na ñu nga xam ne dañoo am viisu jigéenu mbedd am na ñoo xam ne dañoo am viisu def ay mbir ci mbedd. am na ñoo xam ne dañoo am viisu di dóore. dóor am na jigéen yoo xam ne dañ naan ki dóor la ñuy gën a bëgg ki leen dóorul. dégg nga am na jigéen yoo viis yooyu damaa defe ne yàllaa koy def ci doomu aadama wala doomu aadama moo koy cultivé ci boppam. déedéet euh, Cheikh yàlla du ko def. Mhm. sàgganee njëmbët la. léegi-léeg nga fekk garab goo xam ne dundul deewul. Mhm. Mhm. bañ ko jëmbatee lañ ko sàggane Cheikh doom nawle la te doom dafa foor soo ko juree li tax sallallahu alayhi wa sallam wax ne kullukum raain wa kullukum masulun an raiyatihi kenn ku nekk ci yéen muy yow Saneex muy Iran muy alaaj góora muy Cheikh muy Baro ku ci njaboot ga nga am sàmm nga ci waxtu woo demee waxtu woo demee ba xale bi ruur mooy def li Saneex wax mu ngay sëy ca mbedd wala ji jigéenu mbedd ko neex mhm. te mu ngaa ñeenti jabar wala ñetti jabar mhm. jaay ak bàndee ko gënal xam nga lu tax mhm. dama la waxoon ne ne ki jikkoom baaxul bu ko may ku yiw am na xam ni waaw euh, seen yaay wala seeni i wayjur baaxul ñu ditu ñu dudd doon fa exemple ñu dudd baax fa lool ah, ah. déedéet ah. Euh, dafay am sew sew bu ci ne kay dafa am sew sew bu ci rek. waaw ji nga mbaaxu jigéen. du ëtt du pénc du mbedd biir néeg la. est hmm, la tàmbali néeg la. waaw saa neex da dox ci mbedd daje nit ki sagaram bu la jegee nga daw. ci lu mu wax yàlla mu def ko. dëgg la. nga gis ku sañse ni ci télé bii di wax. Hmm. ti moo gën a bon iblis. <laughs> fuuf. te boo gisee yërem naw. te iblis mi ñuy daw di ko moytu mu yàqal sunu maam aadama ki ku gën a yées hmm. ngay daw kële yow yow nga di ko daw te ki ngay daw moo tane ki nga ki nga gën mbaaxu jigéen biir néeg hmm. biir néeg muy jur sang ci biti